sénégalais entre mois de mars 2021 et 2024, nga sénégalais ay jafé jafé yu béré béré béré béré ay nit di ah ay nit di perte sen liguey di ñak sen ay situer les responsabilités ñu ñuy ay loi d'amnistie sama genre de pour euh, porter peut-être euh, ce projet là gëm naa ni lu mel noonu bokkoon na ci mooy réew mi am yoon réew situer les responsabilités képp koo xamante ni mas na leen a tooñ hmm. képp koo xamante ni mas nga dugal ci réew mi guuta mas nga fay wax lu dul dëgg ba tax nit ñi di génn di xeex ah ñu situer ces responsabilités là nga xamante ni lu mel noonu kenn dootu ko xalaate ci ci ci ci voilà loolu bëggoon naa ko ci bëggoon ko ci yokk assemblée nationale nag bëgg nañ fa ay nit ñu am xel parce que sama benn grand bu ñu daan tooñante ak moom maa ngi nuyu de passage Abdou Ndiaye la tudd bu ñu masaan di jàppante ci kër gi souvent danaan ma ngay jaay intellectuel waaye xel mu neex moo gënum njàng mais il a raison tey jii nii di nga gis ay nit ñu intègre ñu mën a nekk assemblée nationale am wàcc seen bopp lépp lu ñu xamul dem laaj ko ba pare dem di porter peut-être euh, jafe-jafe wu askan wi au niveau de de l'hémicycle mais de la même façon ci ngay gisee nit ñoo xamanteni ni euh, peut-être ay diplômé lañ à tort ou à raison ay diplômé lañ mais ce sont pas des intellectuels wala nga gis ñoo xamanteni ni ay intellectuels lañ jappé seen bop mais ils sont malhonnêtes ba paré ñu porter leen à la tête de l'Assemblée nationale kooku tay man gëm naani ki jangul amul ben formation ta am xel mu sell am bëgg-bëggu réew mi kooku lañ moko gëna mérito place am au niveau de de de de l'Assemblée nationale boobu euh mom la ci bëggoon def comme commentaire li doyen doon wax sank par rapport ak temps bu gatt bi bon temps bu gatt bi moom bu ñu euh le fait que élection présidentielle yi passé bi campagne bi nu mu gatté won ak difficulté yi nu mu nekkee won mhm. ñu wara a sénégalais yi am nañ benn benn capacité d'adaptation bu extraordinaire mhm. li ci des rek moy ah am na lu fi xewoon euh, cohérence pour cohérence

Euh, ak ak ak PDS boobu coalition nan man nan lañ ko expliquer quoi. très franchement ay nit yoo xamante ni hein? surtout sur le plan de la morale. oui mais c'est tout, c'est tout. sur le plan de la morale. c'est une honte mais c'est inexplicable. et là je reviens sur excusez moi vous avez parlé tout le temps de ces diplômés et de ces cadres. Mhm. Euh, vous savez aussi en Afrique euh, le plus souvent dañu am benn côté boo xam suñ gars yi manquer tuuti de classe et de personnalité. Mhm parce que mënuñ la fayal nga jàngi nga dem ba ñëw parce que gaay xam ñi ngi tok ci biir kër yi ah. Mhm. <laughs> xam. effectivement ñi ngi tok ci biir kër yi. Mhm, mhm. mais bo toogee ci biir kër yi lan na ci aw du vide. ñan ngay am. voilà kaw tu penses que l'Assemblée assemblée bi ñu ngi fa gis ni du ma tudd seen tur. mais <laughs> il ne reflète pas euh, l' aspiration du peuple sénégalais. amul mënuñoo def benn production des gens qui ne savent ni lire ni écrire. non non Sénégal romb na foofu. doy na waar quoi. Sénégal romb na foofu. voilà je reviens am na benn comportement bi nga xamanté wanoon nañ ko assemblée nationale comportement mais ñooñu laa lay wax ni la ñaari façon ñoo am ci aduna ci nit ki nango nek noble gëm ne noobul lu ko ci fekk dana tok xaar ko hmm. comme ni wa Pastef def xoss la ko ba jot ko ak ñi nga xamné dañu nek intellectuel hmm. mais nango nek jam très bien lool mom la vérité tu as vu comment biñu biñu biñu ñuy Mimi hmm. assemblée bi koy génne Mimi assemblée mais c'est Farba qui avait le téléphone coréen à l'oreille le, le, le, patron du bureau, de, comment il s'appelle encore, le, euh, le gars là, c'est mon chef, du, le patron du groupe parlementaire. Euh, c'était lui le patron du groupe parlementaire. Donc, il dit, moi, il le patron gauche, groupe droite. Mais c'est Farba qui était le patron, <laughs> Farba dafa jang, dafa xam dara. Lolu <laughs> si ñun le c'est-à-dire il faut avoir le courage de saisir de loolu la siy fek fekk la ci ni da ngay nek bañkat mais bo nekkul bañkat nak mais ñak nekk bañkat tax ces grands intellectuels qui sont là derrière ce président dictateur là nek fi def li mu def jàpp nañu dóor tëj dóor damu tej hmm. alors Massaer nga ñëw ci ci ci coalition yi pour ñu waaw après ba ñëw ci coalition yi xam nga le type de député yi ñu doon yi wax d'abord wala ba ñëw ci coalition yi tey dafa am député yo xamanteni souvent contexte bi lu lu mu laaj day am yenn comportement yi ñu soxla gis naa damay gis ay nit ñuy dénigrer waaw pourquoi jël ay caisse pourquoi taxaw ci table pourquoi foqati wii su ko jaree këpp jàpp leen kees yi foqati ko su ko hmm. jaree taxaw leen ci table yi parce que tey jii nii face à une injustice ñu ne tunu ah parce que loolu mëno mëno loolu mëno ko rafetlu parce que hmm. am na yeneen moyens yoo xamante ne on peut s'opposer à travers ces moyens là que di yi ay table wala di di bokk li nga xamante ne moom laa lay wax ci taxaw ci table yooyu ak yi caisse yooyu dafa defaral Sénégal lu bëree bëree bëri tey bu ñu tollee fii nara am benn souveraineté bi nar a am benn gëdd bi c'est parce que ay nit ñoo taxaw taxawaay boobu à à l'Assemblée nationale. pour yow li amagus néew ñi ñu koy ñu koy ñu ñu koy tiitaroo bu benn taxawaay bi amul woon wala benn flag fayda bi amul woon Assemblée nationale dina am non non non moo tax man je salue. le courage de Guy Sagna c'est pas parce que c'est un camarade qui peut-être ñoo beaucoup organisation mais parce que bu mu am ba meilleur député de la 14e législature man pour man un député c'est pas parce que ou le meilleur. Euh, le à travers Il y a des questions écrites. Il y a des questions adresse gouvernement. Mm. Garage un problème te ou député wu waa Baba Garage ah ñaata yoon naka la def ba un député waron di di di di di di nous tout tuddati di roi ci moom ci moi jamais xàmmeewul fële ak fële mooy député au Sénégal avant tout hum. donc loolu moo tax may jël exemple ci moom voilà euh, coalition yi comme ni nga ci wax defe naa Pastef lu def moom ci logique am la nekk mooy demee parteem xam nga demee parti am boobu waxin la rek mais en réalité c'est la coalition Diomaye président moo mooy dem heureusement ba ñoom ñi àndoon ñu ci bëri comprendre nañ loolu mm-hmm. ba à travers des communiqués ñu wax ni ñoom dañuy ànd ak ñoom mm-hmm. xam nga loolu lu muy def daf leen di gën a yombalal liggéey bi parce que tey jii nii après à travers peut-être nomination yi am à travers ni ñu commencé di di liggéey ensemble man je pense que ni demee sous la bannière du PASTEF moo nekkoon li nga xamante ni mooy logique bi yeneen coalition yi ma mënta comprendre kay mooy ay ñoo xamante ni barki démb ak démb nii la ñu defoon mu leer la leeru yàlla nit ñi bokkuñu ay principe bokkuñu ay gëm-gëm mais tey ñoom ñoo war a war a ànd ni dañoo bëgg benn groupe parlementaire tey ah dinañ am jafe-jafe ci seen liste yi de gëm naa ni parce que ay intérêt crypto personnel mooy soubassement wu ces ces ces genre de coalition là. Mm.

Euh, def euh, état des lieux par rapport ak li nga xamante ne moom moo di finance publique yi euh, dégg nañu révélation yi nga xamante ne def nañ ko rawatina ay luubal wala ay njuuj njaaj yi nga xamante ne def nañ ko te muñ mu soxal gouvernement bi nga xamante ne moom moo fi jóge monsieur Wade nan nga jàngatee mbir mi Euh, ak na ni tamit ndax déception la ci yow par rapport ak li ñu dëgg wala li nga doon xaar la euh, ci li nga xamante moom moo di régime bi fi bi fi jógee ñu si doon tudd ay ay milliards tantôt ci mbirum Covid 19 ay milliards ci li nga xam ne moom moo di inondation ak yeneen ak yeneen mbir mi nan nga ko déggee ak euh, ban njàngat nga ci si mën defal. donc man xaar naa ko xam nga Sénégal <coughs> dëkk tojo la Sénégal moom wala si kenn ndax ñun on am na lu ñu fa jot a fekkee. Mm-hmm. depuis du temps du parti

man dama jàpp ne euh, baax na ñu wax mais en attendant peut-être d'ici sept ans danañ ñu jox agenda bi mu gëna clair dans la tête des Sénégalais fi bëgg jëm ndax liñ def c'est très normal dara bu la ko joxee da koy jambat dang koy bam xamné li la fi fekk man euh ci sama xam-xam bu gàtt du ma économiste mais dama jàppoon rek bu ñëwé mënon nañ xawa déssé tout ci affaire bi ndax ndaxte Sénégal pratiquement ñëpp cas social lañ ñëpp ngi ci suuf affaire bi metti lool ñuy redresser di defar mais ñom ils ont préféré euh bu radical bi taxawal lepp xol bam mu leer na leen lii la gars def ñu ñëw nak teg ko maintenant l'agenda bon c'est d'une façon très méthodique j'ai beaucoup apprécié maintenant agenda bi danañ ko dérouler gaay yi xam fi lañ bëgg a jëlee Sénégal li lañ fi fekk fi lañ ko bëgg a yóbbu lañ ko bëgg défé su boobaa le peuple qui est là souverain accompagner leen dimbale leen si loolu ñu def nag une communication très forte par rapport à cela mm. parce que nag mënul yomb waaw parce que euh, léeg-léeg sax sa sa nopp yi da ngay foog ni lii ñuy wax nii sax da nga nekk si ay rêve parce que yaakaaroon ne nit war naa mën a def noonu askanam mm-hmm. yow yow yëg na ci mbirum politique euh, xëy na tamit xam nga état la muy doxee est-ce que yaakaar nga ne euh, euh, comme ni ñu ko waxee ay chiffres yu ñuy falsifié ay données yoo xamante ne dañ koy falsifié est-ce que yaakaar nga ne ak état la muy doxee ak li nga xamante ne moom moo di mooy muy anal est-ce que jàpp nga ne mun nañu falsifié ay chiffres pour mun a luubal xaalis. état moo boobu boo ko déggee lan mooy état du ay nit ñoo fay toog di bind. kii toog di bind bu jubul mën a juutal chiffre fii nga mën a jël mille def ko un milliard ay nit a koy def. mais ki lay contrôler pour dengue comme yo mais dafay jàll dëkk boo xam ne mën nañoo gis nit di fayee ko ñaari salaire mm. ñaari salaire nit di ko fayee ko te demul déclarer ko ne maa ngi fayee ko ñaari salaire. kon kon su booba parce que euh, am na ay corps de contrôle yu nga xamante ne ñu ngi fii est-ce que kon. mais la la la la corruption la compli évidemment parce que la corruption elle est là léegi nag ban niveau de complicité la ak lan la ñuy xaar parce que nag chaîne la vous savez c'est des fonctionnaires.

ni liñ def c'est une première motax mané on va faire une vraie rupture Macky bi mu lan la wax enregistrement illicite kan la japp Karim mm. le la Quand Karim Kese la japp <laughs> li nak les prochains jours à venir nak do gis le ministre de la justice c'est le procureur qui va sortir mm. parce que c'est ça son rôle c'est au procureur maintenant de sortir et les gens ni li lañ def fi lañ ko jëlee ni la démé et on continue maintenant buñ ko bu mu am théâtre parce que su amee tàcc rek da fay yak liguey bi ñu wara liguey parce que le tempo économique qui attend de ce gouvernement là est très colossal donc job bi job bi redresser defaraat bop nit ñi ñu gëm né dañu wara bëgg seen askan dañu wara bëgg seen dëkk ah loolu ce sera pas facile ah. ce sera pas facile surtout que le système est là depuis 60 ans ay banque mondiale yi ngay dégg ak FMI yëpp ñëpp système bi lañ bokk mm-hmm. ñom buñ sañon duñ duñ du rek lañuy def añ suñ añ ak suñu reer yëpp dañ leen koy jox. Mm-hmm. Euh, ils sont là et derrière le système, ce ne sera pas facile. C'est à nous maintenant d'aider le gouvernement et que le gouvernement aussi fasse une communication très forte pour que nous comprenions les choses. Avec ce qu'on veut faire, avec ce qu'on veut faire, avec ce nous accompagner les gens.

détournement. non euh, da nga ma da tout fonctionnaire niveau de responsabilité xam directeur de la BCAO ne peut pas ignorer ce qui se passe ak comment se font les bons ak bon bon trésorier c'est des fonctionnaires qui sont là et le premier ministre l'a dit chacun a son niveau de responsabilité. Hmm. bu fekkee que da nga see wala complice mais yoon dafay fait sa yow. <laughs> yoon day sans inspection parce que aussi gars yi am nañ droit de regard gars et que euh, loolu quand vous parlez de rupture et de transparence mm-hmm. parce que ñun ñëpp dañoo ànd ne noonu la war a demee li fi jaar comme système gëm nañ né warul demee noonu l'ancien système daf doon réserver des des des avantages à ces gens là mais teguwuloon si yoon <laughs> te gënuñ la sénégalais nga comme tout le monde gënuñ mm-hmm. maintenant ñi ñëw nañ ne loolu dootul am mais loolu dootul am mm-hmm. kon képp ko ci bokk wala nga laalee si mais dañ lay sanctionner que ça soit même pour ministres ne ministres ici pas pour actuellement ni gouvernement il y a des problèmes mais rien n'est sanctionné. et le pays est fort en marche et on doit tout faire pour nous faire éviter ces débats inutiles qui nous retardent le peuple qui attend là mais est très fatigué mm. le mal-vivre sénégalais est là et c'est divisible donc y a tempo yi nga xam ne xaar bu ko gars yi tardel wala ñu def lu koy tardel donc euh, na bàyyi justice lu forte ba pare tamit réforme ñu continuer ko a toujours pris euh, le judiciaire ak le législatif dañ ko wara changer mm-hmm. parce que bo xolé euh c'est venu au Sénégal depuis ce soi-disant coup d'état de 1962 avec euh, Dia et Senghor Senghor aussi si profité de cette situation pour nous amener un régime présidentiel fort et dictatorial mm-hmm. Il napp nit ñi di tête di dóor voilà le résultat Les nga gars yi n'ont jamais aimé le pays

Euh, wax ne am na lu bëree bëri li nga xamante ne lu bal nañ ko ci euh, xaalis mais euh, leneen li nga xamante ne peut-être que askan ñu ngi ko doon xaar ñu wax ñu ko mooy ginnaaw révélation yi noonu léegi lan mooy li nga xamante ne moo di mécanisme wala solution ñu fas yéene teg pour bu suba ñu mën a génn ci li nga xamante ne moo di situation bi ñu mel. bon nga baal ma tuuti ma naa revenir tuuti en arrière par rapport ak investiture yi nga doon yi ma wax sànq ci biir Pastef. Mm-hmm. di wax rek ni dans Pastef. waaw ma wax naa ko sànq ne la Pastef c'est un c'est une idéologie idéologie la boo xam ne ay nit ay nit dañ ko épouser parce hmm. que pour man nit bu épouser benn idéologie c'est parce que c'est parce que l'a compris c'est parce que am na am na capacité mentale am na maturité bi tax mu war a capter le message ba tax mu mën ko mën a épouser ba di ko jëfe donc kooku mënu comprendre wala concevoir tey que ne kooku nga ne euh, parmi parmi parmi 12 millions de sénégalais nit ki am capacité intellectuelle bu tax mu mën a capter benn message ba mu mën ko nourrir ba di ko expliquer nit ma ma ne warul mëna prétendre à ce que mu dem mu dem à l'hémicycle défendre lolu c'est mm. lolu mom c'est aberrant parce que dama gëm né képp ko xamné épouser nga idéologie bi am nga war nga war nga mën am toutes les mécanismes nécessaires yi tax nga war mëna nek assemblée nga défendre le peuple sénégalais. motax euh dama dama ci profiter pour wax rek né en tant que patriote de gëm na lolu loolu moo ci bépp patriote boo xam candidat à la candidature. quel que soit li nga xamné mom le parti bi di di di di jël comme décision par rapport à aux, aux, aux, patriotes qui vont, qui, vont, qui vont être dans les listes ku nekk dina dem campagne dans les règles de l'art jàpp ci campagne bi comme ni nga ko doon defee du am pour man du am benn défection te du am benn te du am benn du am du am benn problème à ce point là parce que bu fekkee ne nous sommes des patriotes je pense que loolu mën nga am say mën nga am say ambition mais say ambition warul mën a tax ba ñu tànn nga ne man tànn nañ kii tànnuñu ma euh, damay damay damay damay gedd wala damay damay voilà wala damay commencer di bind di di dénigrer en tant que patriote man loolu moo ne ci man te yaakaar naa moo ne ci jeunes yu bari. nous sommes des jeunes patriotes bokk man maa ngi jeunes, JPS jeunesse du Sénégal te gëm nani, ni ci li gëm y aura une représentativité des jeunes dans les listes loolu la gëm te gëm nani le président Ousmane Sonko mu ngi bàyyi xel ci loolu la cette jeunesse là qui s'est battue euh, bi tax ba tax projet bi war a ag a àgg fii fii tey mu nekk phase bi nga phase de construction là, donc euh, su ma su su ci ci sa ci sa question mhm. euh, damay rafetlu d'abord li nga xam gouvernement def nako, ci éclaircissement yi ñu jox parce que ancien régime bi fi jógee dañu doon faral di jouer sur les chiffres même boo doon seetaan euh, les débats télévisés da nga doon yaakaar ne sont les extraterrestres yoo xam ne defuñu économie defuñu finance defuñu dara toog ci plateau télé yi di génne ay chiffres yoo xam ne doo xam fan lañ ko jëlee di ko di défendre di défendre ay euh, loo xam ne maîtriser wuñ ko ñeme yàlla donc ñun euh, nous sommes des nous sommes nous sommes des citoyens honnêtes d'abord avant d'être euh, des des partisans de Pastef dama gëm ne lépp lu may wax sama akulaay taala dama ko war a mën a maîtriser lu ma maîtriser du ma ci dugg

c'est à saluer reste le reste moi nous nous avons gouvernement nous sénégalais nous ñi au moins ce nous ñu fait fekk gouvernement FMI d'après euh, euh, les paroles du premier ministre Mansongo, FMI contrairement à ce que euh, pas mal de gens de médias yoo xam ne ñu ngi ko doon ñu ngi ko doon ñu ngi ko doon véhiculer ci ay messages naan FMI nee na Sénégal lii xam nga wax ternir image Sénégal ci loo xam ne d'après euh, premier ministre ba mu euh, defee conférence de presse bi nee na carrément ñun ñoom ñoo ñoom ñoo lay waa FMI dañu leen may mm-hmm. donc li ñu doon li ñu doon véhiculer ay ay message ñu doon véhiculer ci télé ak rajo yi ay nit yoo xam ne ce sont des sont des pour man du ñu ay sénégalais parce que mënu ma concevoir yow nga nekk sénégalais yow ñu woo la ci jub jubal jubanti yow nga ne du ci dal bàyyi ñu nekk ci dëng dëng rek dem

en retour financier donc nous, nous, euh, niveau niveau niveau niveau Sénégal nous xam Sénégal 16 200 milliards Si nous ni tay Sénégal am sax tête par par sénégalais ku ci di di nga à 900 francs CFA bo xamné yow bor la bi nga état état bi jël na sa tour yow nga war ko fay bari na ah, mais wax pendant pendant ce là pendant ce là nga xamné ñom ñoo tax ñu contracté dette ñu ngi tok comme non ñu ngi tok comme comme comme comme dara xewul comme dara xewul ñom ñu ngi tok comme dara xewul yow ñu né yow état

parce que bo defee loolu nga falsifier ay ay ay chiffres donc day tax investisseur bi am confiance. ne mm. Sénégal bi mu ngi ci économie mu ngi dox normal lég lég li parce que nëbb nañ leen lu bari bari mm. euh euh, euh Arna euh, nan nan nga mën comprendre euh FMI ñoo fii. suñu experts yi nu ñu càmbaree mbir mi ba gis li nga xamante ne moom moo di falsification yi noonu expert euh, FMI tamit ñëw nañ fii def nañu ay càmbar bañ na ñëw lépp euh, gongo nan nga mën a comprendre ne suñu experts def loolu noonu ba ñu gis loolu euh, FMI ñëw fii relevé wu ko ndax da ngaa jàpp ne suñu suñu FMI moo ñu moo moo lëkkaloo ak gouvernement bi fi jógee mhm. pour nax askanu Sénégal wala mhm. ñi nga xamante ne ñoom ñooy gouvernement bu bees bi ñoom ñoo bëgg a dugal ci xel Sénégal li nga xamante ne lu ñu mënul comprendre bu savez FMI ñun ñun ay humaniste ah, la ñu ñun ñep ñoo bokk le globe terrestre di nek fi di dundando nek plus de 8 milliards d'hommes dans dans cette planète là di dund di yewu di xam organismes internationaux ñak ci yan base dañuy démé des fois parce que des fois dañuy jouer ci manipulation des fois dañuy jouer ci sen intérêt gis nga FMI du ma FMI bon na de mais FMI danaka ci ci ci ci constat bi ma def ku ñu tàccul hmm. ñaari loxo yaa ngi rey askan hmm. ku ñu tàccul yaa ngi rey askan parce que dafa am loo dañ la koy imposer pour ñu mëna la jox xaalis pour nga mën doxal sa politique publique comprendre nga légui ñom FMI bu fekkente ne dañoo ñëw ci réew mi Sénégal ñu tok ñu ñew ñu né euh, Sénégal nu muy doxé dé baxna am nañ confiance ci seen ci Sénégal doxé ñu dem ñëwaat dem ñëwaat ñu né Sénégal day euh, manam suñu yooyu suñu yooyu dañu dañoo rouge mm-hmm. maanaam situation économique Sénégal dafa dafa dafa dafa catastrophique légui ñom même même FMI bobu nonu la lay wax de moom moo wax lolu ci deux mois mu ñëwaat mu waxat leneen ba mu ñëwé amna na lu mu bëggoon ci ci suñuy autorité suñuy autorité nanguwuñ lool parce que dañu nek ci ben phase bo xamné dañuy def audit comme dañuy def audit di léral mënuñu signer ak FMI dara donc comme ñu signer ak FMI dara FMI bobu noonu ben ben ben ki ben dama dama jàpp ne FMI dama xam lu ko jappé ben marionnette la buy buy buy rouler ci intérêt de quelques grandes puissances yi nek ci monde bi ci seen intérêt kese lay dox té ñun dañoo am dëkk bu ñu war a ñun dañoo am dëkk bu ñu war a defar te dëkk boobu bu ñu defar ko il faut ñu jël suñu responsabilité à deux mains du FMI dicté lu ñu pour suñu dem ñun responsabilité xam lan ce ñu war pour mi ci voie d'émergence Les Sénégalais, dina tax sénégalais bu chiffres des fois dañu chiffres taux de croissance Mais ce da nga mais sénégalais parce que taux de croissance à quelque wala 8% taux de croissance Les sénégalais bi ci dundam tourné ci pauvreté boo xamante ne ni saa dafa jéggi dayoo ba pare ñu lay wax ci taux de croissance boo xam ne dañ dem ba di avoisiner les deux chiffres Sénégal fa la toll woon balaa ñoo dugg ci guddi gi ñu nekk donc tey ñaa la tey Macky Sall ak gàngooram gi fi nekk ak ak gàngooram gi fi jógee ci benn ci dernière ci dernière émission dernière émission eurobond bi ñu mujjee jot en 2021 Macky Sall dernière émission eurobond mu ngi ko mu ngi ko jot en 2021 donc tey boo xoolee montage montage bi tax ñu war a mën a jot loolu

ba pare mu on était en 2023 on était en 2023 mu xam ne mënul am deux mandats consécutifs plus le le deux mandats consécutifs mu xam ne dafa dem en 2024 mu leb lu 508 milliards de francs CFA en 2023 en en 2021 en 2021 la ko mu en 2024 day dem ñu war ko fay ci 16 ans donc yow y a ci taux d'intérêt bi man nee naa taux d'intérêt bi 5 pour cent la woon. Mm-hmm. fii taux d'intérêt mu ci 7 pour cent léegi foofu ngay mën compreniez comprendre peut-être li gars yi di wax lan la pour nga mën comprendre il faut nga dem ci lan lan lan Sénégal lépp. ak naka la ko lebee ak naka la ko war a fay ak taux d'intérêt bi si nekk lan la là ci nga di mën a comprendre un peu plus un peu rek di mën a comprendre li gars yi doon def euh, euh, maanaam conférence presse gouvernement doon def au moins di nga mën a comprendre tuuti ci li ñuy wax lan la ñun man du ma économiste moo tax du ma bëgg a avancer de trop ci loolu mais dama xam da xam naa benn affaire gis nga euh, patriotisme lu ma lu mu la mayul patriotisme lu ma mayul saa amoo dara gis nga nañ nekk ay patriote gis nga dëkk bi bu fekkente ne dañ ko bëgg rek te yàlla rek tax li nga xam ne mooy intérêt réew mi di def lo xamné di génération plus ans ci kanam di nga génération dara fi pour lan nit ñi wax Macky Sall fi def euh, euh, euh, Touba fi def fi def lan la lan Sénégal ci rentabilité dans 10 ans wala dans 20 ans ces infrastructures là buñ koy buñ koy buñ koy buñ koy jébbal réew Sénégal dina nekk ci état boo xam ne Sénégal dootu du ko mën du ko mën a utiliser lu dul da koy defaraat ñan ñoo koy defaraat encore parce que parce que parce que parce que wax nga dëgg sénégalais état boobu noonu moo toog tey jël responsabilité am wax sénégalais yi dëgg ne leen gars yi ngeen déggoon seen réew de nii lañ doon doxale mm-hmm. pour ñu mën a am ay bor pour ñu mën la leen lebal fallait que ñu jël ay chiffres falsifier leen ba pare dinañ jël dinañ jël di nga gis ci leb bi benn tu benn somme boo xam ne ci déclaration déclaré wuñ déclaré wuñ ko parce que li ñuy déclaré ak la ñuy ak la ñuy jot la ñuy jot ak la ñuy déclaré bokkul tolloowul donc dina am loo xamante ni déclaré wuñ ko ñu ne la plus de deux mille cinq cent milliards loo xam ne dañ ko dugal ci soowu secret défense secret défense mooy lan ci luubal kese la mooy li ma la wax rek gis nga li fi li fi jàll li fi jàll yàlla ñu ci yàlla musal yàlla bu mu amati Sénégal parce que ñii ay ay nit yoo xam ne pour man ay muucukatu deret lañu maanaam nga fekk nit ay nit ñoo xam ne dañoo nekk ci situation bu metti nga war leen a jàppale génne leen situation boobu nga leen di gën a enforcer sa propre réew sa propre réew nga bàyyi ko situation bi ba pare nga dem sa yoon bàyyi ñu fi ñu nek situation xam dañoo war redresser waat lepp alhamdulilah bañu amé ay jeunes ci ci ci gouvernement bi ñi nga xam nañ enjeu de l'heure yi té wara jël ses responsabilités en tant que patriote nak té assumer ko fexé ba Sénégal génn ci guuta gi mu nekk. lolu mom moy moy sa moy moy mooy lu ñu war en tant que patriote te lolu la ñuy xolloo gouvernement bi à ce que ñoom ñu bàyyi xel que ni sénégalais yi comme ni ko doyen waxé légui eh, ce pays va mal ñun ñëpp. on est issu d'une famille ñun ñëpp kër lañ jógee ñëw fii toog tey di wax mais ku nekk gis nga li xew ci réew mi sa bët suñu bët mu ñu koy may du ñu ay du ànd ak nit nag war a ànd ak yow nga defar ñuy ànd ak yow di la duggal ci loo xam ne da ngay yaax dañuy ànd ak yow ci dëgg hmm. kese hmm. wax la ne réew mi metti na nañu joyanti waat xëy na du du metti du yomb certes mais gëm-gëm bi ak conviction baa ngi fi ak

mi mo lëkkaloo ak gouvernement bi fi jógee pour euh, falsifier wala pour neub ay chiffres wala gouvernement bi bu bees bi ni mo waxul sénégalais li nga xamante exactement loolu la fi fek ci ci ci luubal wala ci li nga xamante mom modi ay chiffres yu ñu génne. ok euh d'abord damay saluer l'exercice du gouvernement le fait que mu jël initiative waxtaan ak sénégalais yi waxtaan ak sénégalais yi wax leen li nga xamante mo xew parce que bépp sénégalais.

Euh, le fait que gouvernement bi jël ay initiative euh, tech point de presse Bob. ci nak euh ay chiffres ñu annoncé ko ci nga xamanteni ni déggé da ngay dar sa gemmi tay buñu démé banal ba naan sénégalais sénégalais bo gis war naa fay 900000 mille francs ci gattal pendant ce temps là Euh, man Njaañ Sitor ga ma dëkk euh, ci lu yàggul dara ci nawet bii nii toog naa ci mbedd bi benn charrette romb ma ndekete hôpital la jóge nit a tëdd ci kaw charrette ci kaw charrette bi la nit ki tëdd mm-hmm. gisuma ko woon bu baax sax booy yi ma toogal ñoo ma ko confirmer kooku tey manqué na ay infrastructure sanitaire ndax fa mu dëkk sori na mu war a dox ay kilomètres pour dem faju ji te loolu xëy na waroon naa am benn ambulance bu ko war a yombal lool loolu ñu ne la pendant temps ñu ngi doon falsifier ay ay ay ay ay ay chiffres di falsifier finance su Sénégal pour ñenn ñi di ko def ci seen bopp te man kàddu gouvernement bi parce que état bu Sénégal bii dama dégg benn journaliste bu mag mu ne xam nañ lépp mm. te nañ wax réew mi dëgg ma gëm ni démb dëgg lañ doon wax réew mi comme dëgg lañ doon wax réew mi te ñun ñëpp ñoo ko ñoo ko ñoo ko la responsabilité de tout un chacun est est est inter oui est engagé li dese le premier ministre ak le président Diomaye mooy Communiquer nañ ak sénégalais ba man gëm naa ni communication bu baax sax moo leen porté à la tête de ce pays mm. tey communication boobu doy na sëkk tey munoo na nga doon waxee ba nga nekkee ci opposition moom ngay continuer di waxee déedéet amna lo xamanteni gis nga ko moy falsifier nañ ay chiffres li ñu wax dëppoowul ak li nga xamanteni mom lañu japp ni mo am nañu def li war amatul ay wax nañu def li li war moy kep ko xamanteni da nga ci laali nañ la traquer FMI ak Banque mondiale moy ces institutions euh, financières internationales man dama bokku ci comme ma ngi ko doon wax sank en tant que anti impérialiste dama bokku ci mhm. ñi nga xamanteni ñoom du ñu def seen investissement lu dul dafa am lu ñuy wax retour sur investissement. gis ñooñu nekk ñu ak ñoom dañ ko war a dañ ko war a war a xoolaat tey bu dee dafa jël di la investir mi ngi xaar ci yow teg na bët ci sa ay or wala teg na bët ci sa ay ressources naturelles teg na bët ci loo xamante ni peut-être yow boo ko fayee di nga ko duubalte li nga xamante ni leboon na la ko kon tey kooku boo amee ñu jug ni la. Euh,

dañuy lebee ci ay ay ay ay institutions privées ñun nak les les les pays à faible revenu dañuy leb ci lu ci melni ay institutions financières yi ma doon wax sank ay FMI ak ay banque mondiale a des taux yo xamante souvent sax do ko mëna do ko mëna fay kon pour man war nañu amaat benn politique bo xamante dañ koy orienter vraiment sur les finances publiques parce que bo lebee ba paré ñeu andi ko ci gox

Macky Sall ñëw Sénégal bi di gën di yokk la mu doon fay mais tey ba kañ